ñu ñëwaat ak yéen seen série amul brisé pour le l'instant nag ñu bëri ñoo ngi toog di xaar série bi naan dina am wala sama gars yi nag euh, ne vous en faites pas série bi nag dina daal di euh, lancé wu d'ici quelque temps ba tax nag jaru ngeen di euh, patiné wu série bi jeexul te tamit dina génn mais sama gars yi balaa série bi di génn ngeen wax nag yéen lan mooy seen avis si ki nga xam te moo nekk Pa Alassane ndax nag gis nañ taxawaay gis nañ nu muy doxalee entre li nga xam moo nekk jabaram yi jël ki teg ko fële jël kii nag daal di koy wàccee ba nga xamante ne moom ak dàll sax ñoom ñoo dal di yor tolo mais les gars nak ko mu jël dal di ko yéegal ci kaw féetewle ko ci kaw ku nak moom moo ko nar ba nga ne dina dal di yor daanu carrément nak soo xoolee nag dal dina jël yaasin teg ko fi nga xamante ne jëloon xaaj bi sax nag eh, kii di yarama tollul foofu noonu ba tax na lu nekk la koy sibir loo lu nekk la koy dal di yor teg ci li nga xam nekk gàlle bi mais nag eh, ay toroxalam soreetul dina dal di ke d'ici quelque temps ndax soo xoolee nag kii di dinañ ko démasquer que carrément moom moo dal di or yi nga ne nag euh, aaw bi daal na foofu noonu la coow bi di commencé foofu la di gën a yàqoo ndax euh, kii di Pandiouga boobaa dina daal di rus si kanamu nawle mi moo tax nag je euh, conseil ki nga te moo nekk ñaareel bi bis buy def loolu noonu bis buy indi preuve na nekk ñoo xamante ne ay kilifa ñoo koy fekkee ñi nga xamante ne nag bokkuñ si famille bi ñoo koy daal di teewee ngir nga xamante ne kii di Pa Alassane du am leen lum siy changé du am leen lum siy falsifié ndax yaakaar naa bu dee ñoom ñett kese ñoo toog kii di aaw bi ak ñaareel bi ak seen doom kii di nag Pa Alassane nar mun na koo défier d'une minute à l'autre ba tax na nag suy def loolu na am ay seede na am ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy teewee ba nga xamante ne kenn du si mun a weddi dara léegi bu leen patiner série bi leen mu génn quelque mbir rek li ñuy daal di yee régler rek mu daal di yee sorti jaa ngeen jëf di leen wax bonne patience